ak ku dëkkaale ak yàlla ngi ba jabaani lay la la ay jaara lu qudwatu saale ak maam jaara lu jinjaaga ah, maam jaara di jaakum mu bees lii dellu kuy ñëw di rekk xaat maam jaara samam kooma damma ji mam jaara soxna jaara mi ni di waajtaay waaje taaru waat mam jaara samam kooma gi damma ji soxna jaara mi ni ko day di waajtaay ak pëstéef gi te ku samwaat te samum ga ak ah. ndaxlaf ga nit ah. moo di gànga nasaan bi xool na saayaan bi xool na ko daay gi waa te tëdd la defu ko daay te yàlla di gudd kaf ba tax lii mu am duy kaf ba tax lii mu am duy kaf ku jënd ñu guréera sol bokkul sol wa ma day rayaat mu far boole moom ñaar yëpp ndax lu daw xasanaat ba far raw ñëpp waawaaw ji ma ray rawaat mam jaara te sonam ga meññeet ma ay Sëriñ Bamba ëpp lu waawaaw deetul am dewalaay dellu faat mam jaara kañal kooka ah. bakkal kooka way kooka moo la la Bamba sayra melo Bakal ko سائل المرام بفك سيها آتن الكوكا بك الكوكا ويكوكا موكا جريها وبما سائل المرام بفك سيها تبا خمد ريقاتا وبدل قليلا mbooleem ga ma nëbbu waaw waaw mu ñàkk istikiyaar si Bamba moo tax mu am xiiwal sëñ Bamba moo tax mu am xiiwal sëñ Bamba moo tax mu am xiiwal sëñ Bamba sëñ Bamba moo tax mu am xiiwal sëñ Bamba sëñ Bamba di si lu waaw waaw noonu fay ñëwaat sëñ Bamba ayib na yaa say xanaa yaa di mel ñettal waaw Abdullah nu xewul yi réew la taat sëñ Bamba suñu tuma ngi sëñ nii sëñ Bamba jëmm yaa ngi nii jëbal la gàddaay ñëw yow kenn du delluwaat وتخيار مام مام على مام بشيء على سنو يمو أك سنو دل واو دل ما نفات لو نلا دم إكسو خلف فلن لا إله إلا واو تلي سنوات سنما جنون نكون كلا أمول كمالي يوم واو يوم العصر كندوت لي أمان لولو لي تتلي موي سخنا جارا كمان أمور تيتوت أمك مكتنغل موي سخنا دلدوات لولو لي تتلي موي سخنا جارا كمان أمور تيتوت أمك مكتنغل lay sanga dal di waat ndamam bu rasulullah ndamam bu rasulullah ndamam ma woon la pasta zamore waaw waaw lu mu teere yaa ko dara keroog bam yére kamil ma yam ci waqaati mu nabi la dal fay fas waaw waaw keroog bam yére البيان جوا خاتم النبي لدال فيف سوا كجيس سان مدار سمر سسن بان مكدل تبر سسن بان مكدل خلكم ريريا سلطان عيد جلتم نكو دل وات وصلى على خير الورى وسلم وآل وأصحاب برم مبقى وصل على خير الورى ثم سلم وعلي وأجابر ورم بقي فلا ثم جمك سمر جفي وخيل دون moo ko moom yaa ngi jël man di doon. sëriñ bi daal dafa doon la benn façon bi doon xaalis. moo ko moom yaa ngi man di doon. samaru jëf yi wax yi lum doon yaayay moo ko moom yaayay jarul man di doon yi wax yi lum doon moo borom ak maan yëngu yaay doon yi lum man di doon bam bi gëm ko wóolu ko doy loo ko def kuy duwaay yaayay bii rek biti moom mooy sama dellu waay sama jëm ak jëf lu doon moo ko moom yëngu yeeg dalilu man di doon am jaara di julit te di as gor di jaamu yàlla di bisu eetu ba nag du xiiri xalaat julit te di as gor di jaamu yàlla eetu ba nag du xiiri رب يا الله بسرية بمنا تقيل خلاص بجليك دي أذكر بجام يا الله بمنا تقيل خلاص جام دران جم جاكون تخبطو جان ci jotaay yu dul dolli ko du saaga جام يلا دبخلي تبانا نغيل غالا دار مست دقل يانا نور بيدو دولين بدري جامر تنيل ددو دبجلين تني أسكر بجام يلا تبانا نغيل so doyloo ko doy nayit lool yaay maa ko bëgg na leen fir te sant naa lool leen ko di asgor di jaamu yàlla sa diine di saab donga maa la doon taas alaaji la ko doon mu ja dawal kaay xaas sa diine di saab donga maa

على المصطفى جعل الوسع بالتفوق ألفا ألفا لرب زلادا على المصطفى جعل الوسع بالتفوق ألفا ألفا لرب زلادا على المصطفى جعل الوسع